bàyyi wax ah, yaakaar naa ko de. waaw mais ay na ñoom moom moom àtte nañ. seetal ko waaw lu doon duñ ko fay xaalis. loolu doy na tribunal bi tranché na ba pare. <laughs> garaaw dinañ ko fay. dañoo tardé léegi comme que dañ ko fay. tey dañoo tardé. waaw nuyul nuyul nuyul. ñu xam ne waaw waaw nuyu nañ waa Zik FM nuyu itam. Euh, sama mbokk lébu yi ñu nekk si géej gi. nuyu nañ ñu ci géej yow gënoo maa nekk eh, eh, eh, lébu. ah mal nga nekk lébu nag de. non lébu yi dañu am fii ñoom it kay am fii. man alab lébu. waaw man sama côté yaay bi fële ca ndox ma lañ dëkk di. ay lébu la ñu. ah monsieur le ma dem. ay ca yéen kay groupe des médias. tribune yéen kay ñëw ak ñun ci opposition bi nga xam ni. Mhm. daa mel ni daa jotaat kattanam de. opposition bi mais opposition bi nag dafa bëri ay catégorie ak ku ci nekk la ngay def parce que bu dee ñoom Mamadou Diop Decroix Déthié Fall. Euh, Abdoul Mbaye hmm. Thierno Alassane Sall ñooñu ñoom ñi ngi nee di yokk tension bi seen diggante ak Macky Bougane Gueye dani moom côté social bi bale ba dem bi ñoo na euh, Ziguinchor Ndofane ngir wallu ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ci lorule te côté bii Ousmane Sonko démb dafa seeti woon kii di xalifa Khalifa Ababacar Sall journal bi nee na dafa mel ni tiitaange gi dafa commencé ëlbatiku de waa Sen TV daal en tout cas bind nañu ab lettre yónnee ko Sénéra xam nga nit ki tamit ñëw siré di la daan si di la daan si du lettre du virgule du point waaw procédure boobu tamit daal xam naa ni daal ah moom daal bind nañ ko ab lettre xaaral nañ ci dellu si ci kanam tuuti. dégg nga loolu. parti socialiste de waxuma la heure waaye nji. Walfadjri ñëw ak ci gis nga recomposition politique bi. journal bi nee na le parti socialiste se mais hors jeu kii moom bu doon football la moom ñoom moom dafa mel ni sorante wu ñoo soow nag. baadu soow. soow tamit soriwul lii de. Mm. soow soow kay ba mu joxe soog mburu ba léegi maar day taal donc boobu di ñëw ak ñun ci gis nga dafa am ay sàkkute yoo xam ni Ousmane Sonko ca conférence de presse ma da koo waxoon Macky Sall. Mm-hmm. bokk na ci élection yeeg yorin gu sell geeg. ñu libéré otage yeeg Khalifa sàll Karim Wade ci boppam ñu delloo leen seen ak seen yéleef en tout cas démb Ousmane Sonko xamal na Macky ne ko yooyu daal bu dajewul riir mi bu jugaatee mooy gën a doy waar riir mi nga xam ne moom moo fi jàll waaye meeru Géejawaay di Aliou Sall naqarlu na bagage su jàmbur yi yàq mhm. rawatina yoo xam ne buur a ko moom ay extrait de naissance certificat de mariage. doy na nee na yoo xam ne yow pour nga am ko rek di nga ci daw juróom-benni weer ah ñi nga xam ne dañ leen di traumatiser moo <laughs> Aliou xanaa da ngaa traumatiser woon. <laughs> mooy wane ñoom si seen échec heure bi waroon na fekk ñu numériser yëpp ba fàtte. état civil bi. waroon na fekk ñu numériser yëpp depuis depuis depuis ñu koy wax. tey jii doy na waar doy na waar Sud Quotidien ñëw ak ñun ci opposition bi nag fii la ñu jëm defoon nañ ko fi nag ca wattu ba. <laughs> mais tonton moom xam nga dafa aay seen biir lay duggaat léegi tasaat leen ba ñu tasar en tout cas Ousmane Sonko rëdd na yoon wi Khalifa Sall nga àndal dëggal nañu yoon wi. dégg nga le soleil yéen kaay ñëw a ngeen ci capital baa ngi nii autoroute à péage Dakar Diamniadio ak aéroport international Blaise Diagne ñu ne capital bi léegi nguuru Sénégal gi am na ci vingt cinq pour cent mais gis nga suuf si nga xam ni ci la lalu ci la ci tali bi lalu mais siré xam nga tubaab yi ñaata la ñu doon jox ñun Sénégal. at bu ne nee na ñooy ay somme symbolique mille francs mais ne mille francs ñaari téeméer il a fallu nit ñi yuuxu fii kaas yi léegi nag nee na ñoo at bu ne gën a gàtt danañu jox juróom-ñetti téeméer ci ay millions huit cent millions nii mille francs ci contrat initial bi mille mais est-ce que juumul ci zéro yi est-ce que non non non non non mais quand pour nga comprendre ko Ahmed il faut nga delluwaat ci contexte boobu. président waaw jamono jooju. président Ablaye Wade. bu doon dagg yaramam sax pour affaire bi taxaw. waaw da da da taxaw parce que moom gisul woon dara. waaw non xam nga xam nga par exemple euh, projet bi. dañu dem benn instant boo xam ni dafa nekkoon projet personnel président wala parce que dafa ñëw ne lii mën naa nekk. gars yi na ko éléphant blanc la. waaw d'accord kenn kenn gëmu ko. léegi nag moom gisul woon leneen lu dul. samp ko quel qu'en soit le prix. loolu moo yóbbee mais gis nga Siré lii. Ah. lii dañoo war a jël contrat ba pare organiser ab lël boo xam ne dañ koy téléviser télé yëpp en direct ñu expliquer nit ñi. bon le pourquoi quoi mille francs boobu noonu parce que am on est comprendre que nit am na loo xamante ni nii. c'est inimaginable nit mënu. man daal non yow réew mi man xaw ma ne mm-hmm. suñu suuf si mm-hmm. ñu jël ko yow tubaab bi woo la mm-hmm. ne la fii ak ñaar fukki at ak nangam sàngam da nga fii lalub tali yow nag léegi yaay bëgg di encaisser ba at yi jeex ñun ñu doo ko moomal suñu bopp waaye yow bu weer wi dee dee ñu jox benn somme symbolique noonu rek symbolique mille francs waaw di ñu jox ñaar téeméer ñaar téeméer ma luyee la sama bitig ngay jaay di am bénéfice mais yow doo fay nga dawal ak bitig bi lu tolloog ñaar fukki at ak juróom. loo teg sa loxo baax na. léegi nga ne ma bitig baa ngi noonu jaay naa pare naa ñibbi naa jëlal ñibbi naa Guinée. comme man comp man ma de. man man mille na de. non man comprendre lii moom xëy na moom Macky dina ko expliquer nit ñi moom moom moom parce que état continuité la. Mhm. le quotidien yéen a kaay ñëw ak ñun ci front baa ngi nii mais front bi nag am na foo xam ne jubóowuñ fa mooy wàllum élection yi. parce que Ousmane Sonko dafa bëgg élection locale yi ñu tëgg ko daar daar. xaaf ne ko balaa ñu ko tëgg nañu defar fichier électoral ba pare. parce que Wade moom wax na leen ko de nee na leen fichier bi tànk yi nañ ciy dem ci élection doo leen gagné. Mm. doo leen gagné Macky doo leen gagné l' observateur ñëw ak ñun ci gis nga ñoom ñaar ñii <laughs> mortal combat bi mooy dellu soir rek. ñoom ñaar waaw. parce que président de la république nee na en tant que le numéro un des sénégalais kenn du ko teg pression. Sonko nekk ko ah kay li ñu la wax di ko def wa ilaa lii di dikkaat mooy gën a tar li fi jóge hmm. non Sonko nag Sonko nag vraiment dàmbooj ni mu yebee avocat bi loolu la Sonko yebee yebee tonton quoi libération yéen kaa ñëw ak ñun ci Awa Cissé mi 17 ans hmm. ñu dóor ko yat ba mujj faatu non lii tës la xale ba le Chérif Mané moom bal ba mujj na koo yóbbu ñoomal xeyam exclusive yéen kaa ñëw ñun ci autoroute bi gagnant gagnant mais Siré mm-hmm. avocat bii Pape Demba Sow mm-hmm. explication moo xaw a jaaxal nit ñi mm-hmm. nee bindul plainte de mais quinze jours ah avant mbir mi di kalaate mbiru Adji Sarr moom recevoir woon na Adji di ko conseil gën a leer de ma ne complot gaa ngi gën a leer de complot bi mu leeree du tey les éco yéene kaa ñëw ak ñun ci nguur gaa ngi vingt cinq pour cent yi dañu koo foqati de ba pare nag tegal Gérard Senac ak njabootam lu diis dégg nga Macky moom dakkal na yàq gi gaa yi léegi ñoo jëndal seen bopp assurance jëndal seen bopp essence pour oto yi nii jóge <laughs> jóge fi muy mujjee gars yi du nii yàq bi daal jeex na la témoin yéene kaa ñëw ak ñun ci mi ngi nii wàllum Eiffage a ngi nii liñ fi doon wax léegi nii mi ngi noonu la yéen kaay nañu il a mis un peu d'eau dans son bissap à propos de la France moom Sonko nee nañu contre une France de déedéet discours discours guerrier bi daal dafa mel ni lu xaw suppi ko critique yéen kaay ñëw ak ñun ci Sonko ngi nii di yëngalaat nag yëngal gësam beneen boo xam ne dina yem évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci waa des médias gis nga bëggaan gee dani nee na Babacar Diagne yoon wi nga jaar nii lu tax nga jaar fa bindoo yëglewoo tàgguwoo xëy nañu tippit coupé tëj télé bi waaw mais loolu tamit da ngay bind moom. mais ñun tam loolu lañ amee sañ-sañ. defu kalaame ngir nii la lu ni mel. dëkkab doore fayoo koy tas. waaye dañoo war a fayu sax nag boo bëggee dégg dëgg. dégg direct news ñëw ak ci DG Sicap Mamadou Kassé ngi noonu 24 heures yéen a kaay ñëw ak ñun ci gis nga suñu maire yi suñu maire yi ñoom ñoom amuñu culture économie territoire. développement local lu ko jëmalee kanam population bi sentiruñ seeni loxo dégg nga loolu exclusive yéene kaay ñëw ak ñun ci mii Siré Siré man man mosuma xam ne malik nga tudd wala du tuddoo Malick Malick Siré si wala bokkul ak yow <laughs> en daal Malick Siré si hmm. xamal na président Macky Sall ne ko gars yi dañ lay kàcc rek waxuñ la benn yoon dëgg parce bu ñu ko waxoon dëgg li mu def fële ca dag ba du ko def ay IG ni mu ko doxalee du ko def teg sam bi daal en tout cas risque na huit heures jot na mu ko bëggoon développé. déedéet pourtant mënoon nga see ñam tuuti de. déedéet bàyyi noonu rek. Ah? bàyyi noonu mënoon nga see rek. en tout cas daal bu ñu bëggoon Macky Sall duñ ko tàggalee ak ay nitam yu démb ci lu jëm ci wàllum politique. bu ñu bëggoon Macky Sall tamit te. gàccuñu ko